mais nag man war naa dem entraînement de nit du dara ndekete à l'époque cent vingt cinq kilos après l'époque vingt sept kilos. après l'époque c'est-à-dire. avant l'époque cent soixante quinze kilos. waxoo jaay livre na waxoo ko jaay parce que doo intellectuel parce que bu ma la laajoon tey jii attends je vais attends. waaw attends attends attends attends. Euh, euh, bii Johnny Walker la. je pense que c'est La Fontaine qui a écrit ça La Fontaine kan bi ko bind les fables. ay fenkat la woon defal naa li may wax bii xam naa ko bii. nga la là je te dis tout de suite là je t'arrête tout de suite parce que tu as touché à la patrimoine française ça c'est La Fontaine. Fontaine mooy la Fontaine c'est lui qui a écrit les fables.